wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat safar màggal Touba atum 2021 yaa jumlatan qad zallazu bi dalalihim Touba ca kanam commission sociale saa su nekk muy taxaw taxawaay yu ama am solo ci néew ju doole yi di ko taxawee ci li nga xamante si mooy daara alxuraanul karim yi niki noonu jumaay Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ji màggal Touba atum 2021 commission sociale yëkkati na ci ay jéego yu ama am solo ci ay pàcc yu wuute bi ci njëkk moom mooy dugal néegub góor toll ci téeméeri tout tànk yoo xamante si nii ci dëkk bu sell bii di Touba la ñu dëkk liggéey bu am solo boobu mu ko doon defee ci benn ci post de santé yi nga xamante si ni ko Touba ca kanam moo ko tabax te mu nekk fii ci daarul xaddiim liggéey boobu nag ñu ngi ko ànd ak euh, docteur Rose Wardini mi jiite sol international commission social nag liggéey bi wéetu ci moom doomu ndax daf cee ànd ak commission santé ànd ci ak waa Touba ci kanam gépp xale yi dañoo defoon benn commission boo xam ne dañ doon wër ci daara yi jagleel ko ay daara nu ñu woon dajal ñëpp waaye dañoo jagleeloon ko ay daara dem ci ñoom laaj leen bi demee ci kër daara ci daara yet nemmiku nañ fa loo xam ne am na sëriñ bu ñu xamal ne lii moom lu baax la ndax léeg-léeg sax ñu jox la gone mu ñëw lu yàgg te doo xam ba xam nàndal nañ ko wala nàndaluñ ko ci biir loolu nag lañ leen tànn ñiy joxe ñaar fukk ñiy joxe fukk am na ci it xëy na ñoo xam ne nii ci nekkuñu ci daara waaye ci kër yi lañ dëkk biñ ko yëgee yabalal nañu seeni gone yi nga xam ne mat nañoo nàndal te nàndaluñ leen ñu boole leen ci liggéey boo dem ñu ngi koy dugal seen loxo seen liggéey rafet nañ ko lool ca fu ñu ci demit bu ñu jàllee rek danga nga naan macha allah waaw loolu daal xam nañ ko ci ñoom moom ndax li ñuy def lépp am na yoon wax bu ñu ma ko waxee damaa daal di ñëw te place bi ne newoon waaye wax dëgg rafet naa ko lool ndax lu am njëriñ la te it su ma ko doon defit dinaa ñàkk loo xam nga nu mu toll kon nag defal nañ ma ko man defal ko waa Touba gépp defal suñ Touba mi nga xam ne lañu yaakaar Touba ca kanam daal ca kanam lañ wax ca kanam ca kanam loolu wéyee commission sociale bu Touba ca kanam yemul foofu ndaxte taxaw na temm ci ñaari téeméer ci ay soxna yoo xamante si nii daf leen doon defal li ñuy tuddee consultation gratuite di cancer di col de l'utérus loolu le nekk jàngoro joo xamante si ni day feeñ léeg-léeg ci buntu butitu yu soxna yi. commission sociale bi indi ay médecins yu xarañ ci wàllu googule ñu saytu lu toll ci ñaari téeméer ci ay soxna ba tey mu ko doon defee ca fa nga xam ne mooy poste de santé bu daarul xadim waaye tamit yee leen ci li nga xam ne moom mooy jàngoro jule ak li koy joxe. su ngeen eh, yàlla tere négligé ba cancer am naka lay manifesté bu dee bu butitu njurukaay bi da ngay gis jigéen bi di xapp deret da ngay gis jigéen bi di sotti ay perte yu xesaw yoo xam ne mënoo toog ak moom fi mu nekk day xeeñ xeeñ yoo xam ne maara day taali loolu nag wax dëgg yàlla nañ yaan yàlla buñ ci yegg ñu amee chance di def lu mel nii nañu fagaru ba yu mel noonu bañ a am ndax nee naa leen métti na de métti na de bu ngeen demee ba yàlla tere ba yegg ci loolu da métti na torop mujj bu métti la te sa la nga am yëpp dina ci dem te kenn du mun a texi fexe ba ngeen mun a amaat li nga xam ne eh, mooy wër moom kay xanaa xaar rekk ak métit ak ñàkk sa xaalisam yëpp yàlla bu ñu si ci loolu. yéen tey waratu leen toog ñaari weer ñetti weer te defu leen dépistage pour leen ko négliger. góom yi ñu leen di wax dem leen faj ko góom yi bu dee jigéen bu nekk ci néegu sëy di am doom mun nañ ko lakk am na lu ñu koy lakk di ko lakk dañ la wax weer bu nekk dañ koy lakk di ko lakk di ko lakk ba mu deñ xam nga góom bi boo ko lakkee ba mu jeex mënatul soppali ku nekk cancer parce góom bi. bi nga xam ne fajuloo ko mooy dem di dem di dem ba nëb ba ëlbatiku nekk cancer mais góom boo xam ne gis nga ko di ko lakk di ko faj ba nekkatu fi cancer mënu fa toog kon xam nga ne tey bu ñu farloo mën nañ fexe ba cancer bañati toog bañati am ba tey commission sociale yemul foofu dem na ci kër Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul gii nekk ci daarul Marnaan muy bërëb boo xamante si nii nemmeeku nañ at mu nekk ci màggal gi ay mbooloo yi mbooloo ñoo fay daje nekk ay gani Serigne Touba Cheikhul Khadim commission sociale bi yóbbul leen ay ndimbal yoo xamante si nii jëm na ci wàllum set seetal bërëb bile. teg ko ci loxol Serigne Jili Ñang mi nga xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci kër googule di kër Serigne Touba gi nekk ci Daarul Marnaan. kon ñi ngi yëgal mbokk yëpp ne commission sociale bi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ci kanam ñi ngi leen di jottali ak cant ak ngërëm ndax nii ñu koy defee ni ko bàyyi Serigne waxee léegi. doonut lu ñuy def fii rek ci barab bi waaye fii ci benn la ci barab yi ñu koy def te lii doon li ci gën a tuuti ndax lii lu jëm mën naa la loo xam ne du feeñ la lu jëm ci biir bâtiment yi la waaye ci jëm mi nit ñi nekk ci biir kër gi tamit nii la ñu taxawee ci ñoom la ma ko waxee woon daaw rek dama naan ñeen da ngeen ñoo noppal ndax loo xam ne ñun la war bu ngeen ko defatoon ni danañ ko jéem wala boog buñ ko mënut dana aju ci kaw sëñ bi ngeen wàccee ñu ko wàcceel ko sëñ bi kon nag mag di waxee ne li nga ma wàcceeb coono yàlla neen yàlla wàcce na coono waaye nii ngeen ñu wàcceeb coono wàccee ko sëriñ bi wàccee ko dong yi mu koy liggéeyal tamit yàlla neen yàlla wàcceeb noonu coono barkeb Seexul ba ñu jógee foofu commission sociale bu Touba Ca Kanam yëkkati ne ay jéegoom dem ci ñi nga xamante si ni caabi dalee na féete ginnaaw nekk fii ci Mbàkke waaye tamit ca njaareem mu yóbbul leen ay ndimbal yu ama am solo yoo xamante si ni mën nañ ko xayma ci nakk ak la mu war a àndal yépp ngir bisu 18 safar bile ñoom it ñu mën koo yëg bu baax a baax sant la ci Serigne Touba boroomam ci bernde yi nga xamante si nii moom la leen commission sociale bu Touba ci kanam indil. foofu le mu séddale ko ci diggante prison bi nga xam ne moo nekk fii ci Mbàkke waaye tamit njaareem soxna Ndey Njaay Manel ñi nga xamante si nii moom moo nekkal tubaa ci kanam njaareem àndoon ci délégation bi ñu dem yóbbu ko ca bërëb ba nga xamante si nii ñi caabi féete ginnaaw ñoom ñoo fa féete. ñu ngi leen di siyaar bu baax baax ci dikk gi ngeen xam ne waatu Touba ci kanam dañoo ñëw tey ci prison Diourbel indi fi nag ay xéewal yoo xam ne takku na lool am solo lool te it ñun koy indil aajowoo ko lool muy ñi nga xam ne caabi de leen a féete gannaaw fii sëñ Mourtala Mbacke sa taxawaay rafet na Mbacke la ndax ba nga xalaatee néew ji doole yi xalaat ñi nga xam ne caabi de leen féete ginnaaw. booba rek la matamatale Mbàkke. sëñ Mourtala ci li muy def ci social mi nga xam ne Touba ca kanam kenn ku ne xam ne ko moom la tàmbalee woon te itam ba léegi mu ngi ciy dox jéego yu mucc ayib. ca mbënn ma ca ndaamaatu 2016 ca jàkkay sëñ Saliou ja ak tey Touba ca kanam teggiwul tànkam teg wàññiwul loxoom day yokk rek jëm jëmale ca kanam. li nga xam ne moo sabab ñu ñëw fi tey moo di dañoo dajale ay social dafa dajale ay xéwal jaar ci prison ba ca Mbàkke bàyyi fa nag ak ceeb ak diw ak i saabu ak loo xam ne nii maanaam ci xaalis danañ ca mën di def dépasse jàll si ci prison bii ci Diourbel fekk fi soxna Adama Ndiaye mu ngay liggéey ci sociale ak soxna Ndey Ndiaye njaareem bi nga xam ne nii ñëpp xam nañ ko mu jiite Touba ci kanam fii ci Diourbel ñu ànd ak ñoom ñëw libéré aussi prison wu Diourbel bii nag ak ceeb ak diw ak saabu ak itam xaalis boo xam ne nii ca la ñuy togg mooy maanaam ci bis bis bi daal 18 safar ñu bëgg nag ki fu waay mën di nekk bëgg ca rawatina ñi nga xam ne nii mënaluñu seen bopp caabi faral leen ginnaaw. ñoom boobu ba léegi bi safar bi commencé ñoo ngi teg seeni kaamil di jàng wàcc nañ kaamil yu baree baree bare loolu yàgg na ci ñoom te tabarkàlla ñu ngi ñaan ñu ngi màggal ci biir kon daal lu ñu leen di dénk daal. wax dëgg yàlla ñi nga xam ne caabi daf leen féete ginnaaw ni ngeen def dañoo bëgg nag population yi jëwriñ ngi gën cee jàpp gën leen a jàppale seen vole prison bi mu gën a law tabaarkàlla tar ba prison Sénégal yëpp kontaan nañu région bi bi ngeen ñëwee Mbacke ak Diourbel waaye tey bu ñu sañoon dañ naan Touba ci kanam prison 37 établissement pénitentiaire yëpp jaar nañ fi te incha allah dina nekk ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ba tey commission sociale bu Touba ci kanam yemul foofu ci màggal Touba 18 safar atum 2021 taxaw na temm ci ñu samp lu toll ci ñeenti waañ ci ñeenti wàll yi nga xamante si moo war dëkk bu sell bii di Touba muy gànnaar ak Saloum penku ak soow ay quartier yu sori yoo xamante si ña fa dëkk la ci ëpp. seen doole demeewul noonu seen yitte tamit bari na bari na ay jafe-jafe yu ñuy dund commission sociale bi taxaw yóbbul leen loo xamante si ni bisu màggal gi dinañ ci mën a def seenu màggal foofa ca fa nga xamante si ni moom mooy quartier yooyu le ndax dañ def bu màggal jotee ñuy dem ca biir dëkk ba di fa lijjanti lu màggale daaw dañ noo defal suñu waañ indil nu suñ ñaari nag suñ ñetti saakuy ceeb. ñetti vingt litres yi diw indil nu kafe indil nu suukar indil nu lépp dara manqué wut daanaka màggal na ñetti fan tey jiet ñu indi lan nu indiloon daaw indilaa nañu ren ji lu ko ëpp ma nga ñu kontaan ci nag suñ xol sedd gu ñuy ñaanal Touba ci kanam yàlla nañu yokk ba yëg ko te yàgg fi te wér ci barke Sëñ Fàllu ñu ngi ñu ngi kontaan ci social bi lool may dël bëgg di soññiwaat sama mbokki taalib yi nga xam ne ñoom nañ indil social bii tey muy loo xam muy jëfandikaay yoo xam ne dañoo bëgg képp koo xam ne sa liggéey sa sa loxo jotu sa gannaaw bu ko yàlla dogalee boo ëllëgee boo fi ñëwee nga lijjantiku loolu ñu ngi koy sant bu baax di ko sant waa social bi. lii moom mi ngi doog am tey waaw mi ngi fi doog am tey waaw kontaan naa daal waaw. bi fas nañ ko yéene jëfandikoo ci dana tege si ñoom dañoo bëgg bu ñu yàlla mayee jàmm. ñu dajaloo togg yekk joxe fu taaliba nekk boo ñëwee jëfandikoo ko fu xam ne mbool ndab mën na faa yegg ñu yëkk ñu yóbbu fa ndab am na yaakaar ne ni ngeen ko bëggee noonu lañ ko fa yéenee liggéeyale ba commission sociale ëllëg résultat yi yal nañ ci yàlla jox ndam. fas yéene nan ko fu ku am mbana ci àddina dinaa ko àbbi nañ ko teg fii dinañ togg ba mu doy fas yéene wër taw féex gépp nag woo leen. ku ci waa ku ci koo xamante ne rek yaa ngi nekk ci Tawfekh gi te màggale fi dinañ la woo dinañ ko organiser dinañ ko def na mu ware ba lekk yi doy sëkk dara du manqué. man nag dama leen sant di leen ñaanal ndax seen taxawaay moo tax soo gisee mu bëgg a dugg ci liggéey bi euh, seen liggéey bu rafet ak ni ñi taxawoo nañu xàmmewuñ kuñ xam ak kuñ xamut dañuy dugg rek lijjanti la ñii Tawfekh gi bari na ñoo xam ne tabaxal na leen fii kër. ñii biñ ne robinet kenn ku nekk la nga tawat moom lañ la jox dañu ñaanal nag sëñ Mourtala mi nga xam ne moo jiite euh, sociale bi di ko ñaanal maam taxaw ndax ku nekk xam na ni maam defal na ko loo xam bu tëddoon ci di tedd kon su jugee di taxaw nit ñi moom war nañ ko ñaanal bu baax. ren jii bi ñëwee nag euh, ci jàppaleeg sëñ Abdoulaye Bousso moom sëñ Omar Bousso mi nga xam ne nii dëkk bii moo fi nekk doon fi jàmbaar lool doon fi koo xam ne nii day yaatal liggéeyu sëriñ bi fii. ñu fi bëri ci dëkk bi moo leen fi moo leen fi dogal bi nga xamee ne yëg na ne commission sociale defoon nañ loolu daaw nag ren jii mu sàkk woon ngir ñu indi ko ci penc mi. ci biir loolu nag ginnaaw bu fi Touba ca kanam indee euh, ay ay indi fi ay ginaar indi fi ay pomme de terre soble ak yéen war a àndal yëpp ak dépasse bi koy togg ak kafe ak suukar ak mburook yooyu yëpp moom Sëñ Ablaay ci boppam jàppe na ci aw nag koo xam ne ni moom moo ko yëkkati. boole ko fukki saako ceeb wax ne damaa bëgg liggéey bi gën a yaatu ngir ñëpp mën cee gis seen bopp loolu nag ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax ndax bu fekkoon ne fépp fu ñu dem rek danañ fa gis ku gisee noonu su boobaa yëf yi dana gën a dana gën a yaatu kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ñaan suñu borom dolli ko ak wér waaye dolli ko kàttan te defal ko xéewal yu yaatu ba lim yéene liggéey sëñ man koo mën koo àggale ba tey ci liggéey bi commission sociale bu Touba ci kanam di taxawee ci màggal gi taxaw na temm ci jënd lu toll ci juróomi téeméer ci ay basang séddale ko daara alquraanu karim yi nekk ci dëkk bu sell bi di Touba. ndax ku ne xam na ni dëkk bi lépp lu waay di def daara moo ci war a jiitu ndax dëkk bi borom bi mu koy sanc daara taxoon mu sanc ko waaye tamit di fi liggéeyal boromam subhaanahu wa taala commission sociale séddale lu toll ci juróomi téeméer ci ay basang jëm ci fi nga xamante si moom mooy daara alquraanu karim yi lee waaye kenn du Cheikh Mouhamadul Mountakha moom mii lay nga xam ne saa su nekk lu commission sociale di yëkkati rek moom mu dana ca dugal loxaam bu baax a baax niki noonu Touba ca kanam Cheikh Mouhamadul Mountakha participer ci lu toll ci juróom benn fukki ci ay basang ngir mu jëm ci daara alquranul karim yooyu lee liggéey bu am solo boobule lenn rek la ci la commission sociale bu Touba ca kanam sax ci di ko def muy ab liggéeyam. bokk na ci loolu le ay doomu aadama ngir seen wàllum wér-gu-yaram mën a delluwaat ca nañ ko bëggee. taxaw leen temm jël leen en charge ñu di leen faj ci hôpital yu mag yu am solo yu nekk ci dëkk bu sell bi di Touba. ñeneen ñi mu di leen jëndal ay ordonnance waaye di taxaw association yi nga xamante si nii dañuy amal ay yëngu-yëngu ci jamono jamonoy màggal Touba. mën nañ cee tudd ku mel ne Rabion Safar muy kuréel liggéeyal ku tedd ki amaloon ab joŋante ci li nga xamante si ni moom mooy xasiday Cheikhul Khadim yi waaye tamit association bi nga xamante si nii mooy wàllu ak yeete. mi ngar dajjoo lépp loo xam ne moom mooy ñi réer ci jamonoy màggal Tuuba yi bàyyi ko ci ay tut tànk waaye tamit ay mag mu di leen gindi di leen delloo seeni mbokk commission sociale bu Tuuba ca kanam yemul foofu taxawoon na tem ngir màggal Tuuba gi nit ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe ci seen wàllum dëkkuwaay mu tabaxal leen ay nekk yu mucc ayib waaye tamit ànd ak ay wanag ñii ay wanag rek nekkoon seen yitte mu taxawu leen ca niki ñi nga xam ne jafe-jafe foos lañu amoon wala jafe-jafe xadd commission sociale séddale na tamit ab ceeb bu bare bari ci màggal Tuubaa gi jëm ci mbokki taalibe yi ak néew ju doole yi waaye tamit yëkkati na ay koppar yu takkoo takku jébbal leen ko ngir ñu mën a màggal màggal gile di 18 safar ci jàmm. waadim salaataka bi salaami ala nabi lii lépp di ab liggéey boo xamante si ni bu ko xaymaa ci wàllum koppar toll na ci million 43 millions 972 mille 90 francs muy li commission sociale génne ngir taxaw ci néew ju doole yi mbokki taalibe yi ci màggal Tuubaa gi atum 2021 waaye taxawaay bu am solo bile commission sociale wéetu ci benn yoon ndax mi ngi sant ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom saa su nekk di dugal seen barkeelu ci numéro Wave bii ak numéro Orange Money bii. waaye di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha moom mile nga xam ne saa su nekk ndimbalam ak jàppaleem ci commission sociale bu Touba ca kanam du dakk benn yoon. lu commission sociale bu Touba ca kanam yëkkati moom Cheikh Mouhamadul Mountakha mooy bay waar wi nga xamante si moo ci ëpp. niki noonu ay mbokki taalibe yoo xamante si ni ñi ngi ci biir réew mi waaye tamit waa diaspora bi fenn fu nekk waaye di fa dugal addiyaam mu jëm ci commission sociale bu Touba ca kanam ngir mu mën a taxawu néew ji doole yi daara alxuraanu karim yi. ak ñi nga xamante si ñooy way tawat yi niki noonu am na ay kër liggéeyukaay yoo xamante si ni jàppale woon nañ commission sociale bu Touba ca kanam lu ci mel ne banque Orabank CMS CBAO banque islamique Ecobank ASS assurance kuréel gii di Touba ci kanam gi nga xam ne moom moo sant commission sociale liggéey bu am solo bii ngir mu taxawu néew ju doole yi nekk ci dëkk bu sell bii di tubaa commission sociale bu tubaa ci kanam ci njiital Serigne Mourtala Mbacke Abdoul Fattah di sant ak di gërëm. mbooleem membre yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam di ko jàppale ci liggéey bu ama am solo bi nga xam ne moom la commission sociale di def tamuy loo xamante si ni ko xool gis ko waaye timit ku ko làmb daj ko wajalilaayi maskanitu baabaat misras mi abijaayi xayri manabaat